fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu biñ fi mujj nag borom téere bi mu ngi doon jàngal ki nga xam ne amaana julli jot na amut yére wala julli jot na moom mi ngi ànd ak sobe wala ki nga xam ne julli na mooy xibla yan att moo ci doon war yépp borom téere bi jàngaloon ñu ne ko sin dars bi ñu génn tey nag mi ngi bëgg a dikk ak ñun nag ci jëmmi julli jàngal ak moom carrément lan moo cay farata lan moo cay sunna ak yu ni mel ah moom la yonent yàlla Muhammad wax ne inna ahda alladi baynana wa baynahum assalaa fa man tarakaha faqad kafara ci benn riwaaya mu ne assalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad taraka diin aw faqad hadama diin mu ne julli mooy ah, kene bi nga xam ne moo téye diine ku mabbu julli mabbu nga sa diine waaye ku taxawal julli taxawal nga sa diine julli di jaamu yàlla gu rëy nga ne ginnaaw ñaari baati seede mooy jaamu yàlla yi gën a màgg ci jaamu yàlla yi moom julli mooy azamul ibadat mboolem jaamu yàlla yi ñuy jëf yëpp moom julli mooy jaamu yàlla gi ci gën a màgg waaye doy na ci ay ngëneelam moom julli sax yonent yàlla Muhammad nee na jaam bi ci duggee ci xabru bu duggee ci biir bàmmeel jëfam bi ñu njëkk a xool ndax baax na wala baaxul mooy julli fa in salahat buñ xoolee fekk mu baax faqad aflaha day texe dem aljanna waaye buñ xoolee julli fekk normal ayasu billah day ñàkk yaakaar kon moo tax yooyu yëpp day wane ne fooraay gi nga xam ne julli am na ko mooy jaamu yàlla gi nga xam ne bi ko yàlla di farataal ci xeet wi yent yàlla Muhammad yàlla da ko yóbbu ci kaw mooy subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ca kaw la ko yàlla farataale yóbbu ko ba ca moom jox ko loolu moom julli rek moo am martaba boobu kon day wane yooyu yëpp ci màggaayu julli julli moom nag lan moo ciy farata xam ko jaadu naa am na ku ñoom imaamul aw boo demee ci ku maam borom Tuubaa mu ngi koy indi ca tasawudu sixaar waaye nag noonu borom sax kii ah, muqaddimatul ansiya wax na ko moom tamit nee na nit kii bu jullee ba pare di laaj ko la mooy farata laaj ko la mooy sunna xamu ko waaye mu sàng ba pare laaj ko la mooy farata xamu ko nee na ko julleem googu wérut loolu imaam Aw fii wax na ko waaye nag ala kulli li gën a wér nag li gën a lëng rek mooy nag bu ko topp royee ci kuy def ku xam bu defee boobaa dina wér mais ala kullin daal kàddu gi lu ci mën a xew rek neen loolu kàddu la ko di xëpp nit ki ngir mu def yitte ngir xam wàllu ndax suñu wàllu mbir àdduna yi ñu ñëpp ay def effort ngir xam ko kon suñu wàllu diine yi tamit noo moo ci gën a yey ñu xam lu nekk la mooy àtteem ak lu nekk lan moo ci war lu jaadu la kon kon loolu tey boo ma toppee borom téere bi moom la ñu bëgg a jàngal lan mooy farata ak lan mooy sunna ak lan mooy ngëneel boo ñu toppee rek borom téere bu nekk dana la ko leeral benn par benn kon tey mi ngi commencé ci faratay julli farata nag mooy loo xam ne boo ko bàyyee sa julli day loolu mooy farata mu ne faraidu salaati faratey julli bi ci njëkk anniyatu salaati almuayana mooy nga yéene julli julli gi teew gi nga war a julli maa julli gi nga war a julli nga yéene ko loolu mooy farate bi ci njëkk waaye naka noonu wa takbiratul ak kabbaaru armal farata la mooy kabbaar bi ngay njëkk def pour commencer julli gi farata la mooy allahu akbar bi ngay njëkk a wax farata la beneen baat doy nag budut allahu akbar beneen baat boo mën a jëfandikoo bu dul allahu akbar wérul ci kon allahu akbar boobu farata la waaye naka noonu wa qiyaamu laha ak taxaw bi ngay taxaw di wax allahu akbar farata la kon allahu akbar bi farata la mais taxawaay bi ngay taxaw di wax allahu akbar farata la muy ñett ndax yéene mooy bi njëkk takbiratu ihram mooy kabaar armal farata la waaye naka noonu taxaw bi ngay taxaw di kabaar armal farata la muy ñett waaye naka noonu wal fatihatu jàng fatihatul kitab mooy alhamdulillahi rabbil alamin nga jàng ko farata la wa qiyaamu laha ak taxaw taxaw di ko jàng tamit farata la jàng faatiha ci boppam farata la mais taxaw di jàng faatiha tamit farata la kon mi ngi noonu moo tax faatiha yow mi nga xam ne yaa ngi koy jàng boo boo mën na taxaw jàng nga toog jàng ko te dara ab benn ngànt warul la ko boobaa sa julli gi wérul ndax da ngaa bàyyi farata te nee naa la képp ku bàyyi farata sa julli dafay yàqu kon mi ngi noonu am nga juróom mën a war rukkoo rukkoo muy jàpp say oom farata waaye naka noonu wa rafa minhu siggi ci rukon tamit farata la rukon farata la waaye siggi ci rukon tamit farata waaye naka noonu wa sujud sujud farata la ala ci sa jë maa ngi sujud ci sa jë farata la wa rafa minhu siggi ci sujud tamit farata kon mi ngi noonu waaye wal i'tidaalu yemoo yemo la la ma yemoo boo taxawee nga taxaw taxaw bu normal bu fa nekk képp sa tànk yi ba doo mën a taxaw bu baax waaye bu ko ŋaayi sa tànk yi tamit bay waaj a daanu wala ngay en rukon ji mel ni ku bañ a sëgg wala nga sëgg bay waaj a daanu suuf yooyu yëpp na ko moytu waaye nekk noonu tamit boo si yootee bul sànneeku ba pour pour nga jugaat da ngay am problème wala koo denda sax da nga conc yooyu yëpp ëppal la nañ ko moytu kon loo ciy def nga def ci bu yem a ah loolu faratal ndax diine islam diine tawasut la maanaam diine diggu dóomu la du diine ëppal sànnee ko bu ëpp wala jël sa loxo yi ŋaayu ko ba xam ne ki nga dendat moom day am problème mu sëgg ak yu ni mel yooyu ëppal la wala jël sa tànk yi ŋaayu ko ba mu ëpp xam nga doo mën a taxaw bu baax loolu ëppal la mais na ko ŋaayu ŋaayu bu yem bu ko kepp ba ëpp waaye bu ko ŋaayu bu mu ëpp sa loxo yi bu booy siggéet yow góor bu ko kepp sa yaram yi waaye tamit bu ko lépp na nga ko def mu yem yow góor waaye naka noonu tamit wa tumaaniinatu ak dal booy julli nga dal boo rukkoo nga sëgg fa ba ku la seen xam ne da ngaa rukoo loolu farata la am na ñaan ñu fay def ñaanee ngëneel la boo ko bàyyi woon tamit te dal rek julli ko wér na waaye yooyu yëpp nag mooy nga dal rek moo tax foo dem ci julli am na ñaan yu la fa defal waaye yow nga ñëw rukoo boo sëggee balaa ngaa yegg sax gii nga ba dem sujjóoti boo koy def sa julli yàqu na wala nga sujjóot siggi avant ngay toog sujjóotaan nga boo ko defee sa julli yàqoon ndax dal gi farata la kon ñu bokk ci bàyyi xel moo tax waa ji ba mu fekkee yonent yàlla Muhammad si jàkka ji waa ji 5 secondes waa ji julli ñaar la ko toog yonent yàlla Muhammad ne ko jullil mu defaat noonu mu ne ko jullil mu defaat noonu mu ne ko niit laa mu ne ko da nga julli a dee boo a dal bañ xam nga nga door boo siggee nga taxawaat bañ xam ne taxaw nga door dem si yoon loolu diggante yooyu jël di bàyyi da ko war a def farata ndax dal gi farata la ku bàyyi farata sa dafa yàqu kon ñu bokk ci bàyyi xel waaye naka noonu tamit wa tartibu ak toftale bayna faraidiha nga toftale diggante farata yi loolu tamit farata la waaye naka noonu wasalaamu sëlmal farata la mooy assalaamu aleykum gi jeexal julli gi farata la ah ak wal julusuhu alladi yuqaarinuhu ak toogaay bi nga xam ne mooy lënkaloog sëlmal bi diir bi ngay waxee assalaamu aleykum assalaamu aleykum farata diggante bu ndaw bi ngay wax assalaamu aleykum tamit farata li la limal noonu boo ko compté dan la jox fukk ak kon ku la laaj faratay julli ñaata la nee ko fukk ak te nee la nee na nit ki bu jullee ba pare lekk la may mooy sunna na julleem wérut ndonte nag borom téere ca ginnaaw nee na loolu da ko wax ngir xuppe ngir tiitale ngir nit ñi daf yi tëj seen wàllu diine mais ala kulli ndagam na ci ku waxta ko borom bu mag la imaamu aw fii ndagam yegg na ci loolu rek loolu nit ki kon defal effort ngir xam sa diine ngir mucc ci wax yooyu kon mi ngi noonu kon ndax ni ñu xamee suñ mbiru wàllu àdduna kon li gën a yaay ñu xam ko mooy suñu wàllu diine ndax ñun ku ci amoon xëy soxla wala nga war xëy dem wala diggante benn këyit balaa ngaa dem da nga ay information bañ wax loolu leer a xëy dem waaye nag suñu wàllu diine ci moom dañoo jàpp ne ku màgg man ko wala ku man ko wala yàgg naa fi nangam ak nangam te nga xamee déedéet mais la diine ji diinay jàng la du diinay ko nag mi lay leeralal yéene waxoon na la ko ni ñu koy defee ak fan lañ koy defee mu ne wa suróotu niyati sarti yéene mooy muqaaranatuha mooy nga lënkale ko li takbiratul ihraam ci kàbbaaru armal nee na yéene daal fi nga koy dugalee booy kàbbaar kàbbaaru armal nee na ci nga koy yéene waale dugale ko ci moom yéene noonu lañ koy defee kon mi ngi noonu kon xam naa kon yow mii digg dar si ñu tënkal la faratee ci mu gaaw faratee julli bi ci njëkk mooy yéene ndax yent yàlla Muhammad moo ne innamal amalu binniyaati be xadis ba jeex kon yéene mooy farate bi ci njëkk takbiratul ihraam kàbbaaru wa qiyaamu laha ak taxaw bi ngay taxaw ngir kabaaru armal muy ñett jàng faatixa farata la taxaw ngir jàng faatixa farata la rokon farata la siggi ci rokon farata la sujjóot farata la siggi ci sujjóot farata la wal i'tidaalu mooy yemoo nga taxaw looy def nga def ko mu normal farata la dal farata la ak toftale diggante farata yi farata la wasalaamu sëlmal a farata la naka noonu tamit a toogaay bi nga xam ne mooy lënkaloog sëlmal bi loolu tamit farata la nga xam ne kon moom bëriwul fukk ak ñeent la mën nañ koo lim ci ay baaraam kon nga xam ne kon loolu bëriwul kon nit ku nekk nag war naa def yitte ngir takk ko ngir xam ko nga xam ne loolu ñu borom xam-xam di ci waxe yooyu boobaa nga mën cee mucc kon kon ñu jaar la ci baat yooyu yi xam ne yaa ngi topp téere bi mu ne faraidi faraidu salaati faratay julli anniyatu salaati al muayyatin mooy yéeney julli julli gi nga war a julli mooy wa takbiratul ihrami kabaaru wa qiyaamu laha ak taxaw bi ngay taxaw ngir kabaaru armal farata la waaye wal qiyaamu wal fatihatu jàng fatiha farata la wa qiyaamu laha ak taxaw bi ngay taxaw di jàng fatiha muy alhamdulilahi rabbil alamin farata la waaye naka noonu wa rukuu rukuu farata la waaye naka noonu wa rafa minhu sigi ci la waaye naka noonu wa sujoodu sujood ala jëbat ci sa jë wa rafa minhu ak sigi ci sujood farata la sujood ci sa jë teg sa jë bi ci digg bi sujood ndax borom bi nee na wasjud waqtarib mu nekk jaamu yàlla gu màgg goo xam ne yàlla rek moo ko jegoo moom sujjóot moo tax borom na wasjud waqtarib foofu boo sujjóotee fi nga gën a jegee borom bi kon profitool nga ñaan fa loo man ent yàlla moo xam ne nee na rukon bu ngeen rukoe na ngeen profitoo sabbal yàlla lu ngeen man waaye nag bu ngeen sujjóotee na fa góorgóorlu lépp lu ngeen am soxla man ko faa ñaan ngeen profitoo ngeen ñaan ko fa ndax barabu nangookaay ñaan la ndax mooy barab bi nga gën a jegee borom bi subhanahu wa taala waaye nag na wal i'tidaalu yemoo farata la wa tumaaniinatu dal farata la wa tartibu toftale bayna faraidiha diggante farata yi farata la wa salaamu sëlmal farata la wal juluusu ak toogaay bi allazi bi nga xam ne yuqaarinuhu dafay lënkaloog sujjóot bi loolu tamit farata la mu ne wa suruutu niyati sarti yéene al muqaaranatuha mooy nga lënkale ko mooy nga taqale koog lan li takbiratil ihraam ci kabaaru armal bi nee na yéene nga boog yéene da nga koy taqalee kabaaru armal bi waaye yéene tamit kenn du ko wax ci kaw waaw yéene jëf mbir la boo xam ne xol moo koy fas waaye jël na bisimilah fas yi naa yéene jul takkusaan loolu ëppal la yéene cër la boo xam ne xol moo ko jegoo kon kon xam naa kon tey ñu ngi ñëw taxaw foofu jàmmane jàmmane jàmmane ñun moom lañu ñoo